waaw maa ngi lay fay Bour Gueweul. Modou 2017 di jeex nii mën nañu xam lu ci gën a marqué. waaw 2017 bi liñ ci gën a marqué ah, mooy kilifa diine yu bari yu làqu xam nga sëñ Cheikh làqu na fi Alamin làqu na fi Khalifa na làqu fi ak yeneen kilifa diine marqué nañu 2017 moom xam nga na ci Sénégal trop mais tamit sant yàlla quoi. waaw mooy ñun tamit suñ combat yàqu na ci xam nga am ay kii yu am esaat. métti daal 2017 tamit ah métti na ci lamb ji trop ah parce que xam nga mooy fi am report ba amul ci bi sax bari na xam nga mais wax lépp sant yàlla yàlla moom lu mu door rek lu gën la quoi. Lac de Guiers def benn extrait sur Sénégal waat ci yàlla ni bu ngeen bëriwul fukki yoon dañu lay eh, la rek jarul wax nañu bàyyi bu bis ba rek incha allah waaye moom jarul ay wax jarul ay tontu nañ bàyyi le 28 soretul incha allah yàlla ma ñu tarak fekke bu soobee yàlla. Modou 2018 bi la mooy suy Modou ak Modou lan lay wax sénégalais. waaw xam nga di ci ñaanal ñëpp jàmm xam nga ñu dugg ci ak bisimilah génn ci alhamdulilah rabil alamin xam nga yàlla def xewul yu bëree bari xam daal ci Sénégal ñëpp ñu bokk dafa ko bépp jullit incha allah. mais le 28 yéen ngi koy pare. bu soobee yàlla incha allah ñu pare bu soobee yàlla.